Welcome to the Bilingual School of Excellence, Complex Center. Aux parents soucieux d'offrir un avenir radieux à leurs enfants, une seule adresse, le complexe Senker situé à Grand Au complexe Senker, les bébés vivent dans un milieu adapté et encadré par des assistantes maternelles. Nous proposons un environnement familial, un milieu sain pour les tout-petits. Nos crèches offrent des conditions stimulantes pour la socialisation des enfants. Nous respectons les normes de sécurité et d'hygiène. Au complexe Senker, 12 mois sur 12 avec un système de vidéosurveillance dans l'enceinte de l'établissement pour assurer une sécurité parfaite. Les salles sont climatisées en période de chaleur. Nous recevons les bébés à partir de 2 mois et plus. En cas de pandémie, nous appliquons les mesures barrières avec des séances de lavage des mains obligatoires au gel hydroalcoolique ou au savon et à l'eau pour tout le personnel plusieurs fois par jour et le nettoiement des locaux chaque deux heures à Senker comprend une garderie pour les enfants de 2 à 3 ans, un préscolaire bilingue, un élémentaire bilingue, un centre de loisirs. L'Institut met l'accent sur la maîtrise de l'anglais, du français, de l'arabe, ainsi que sur l'expérience de la vie, la culture du leadership et le travail d'équipe. Le groupe scolaire Complexe Senker est situé à la cité SIDAC de Grand Bao et à Zone B Amitié près de la clinique internationale de Dakar. Appelez-nous au 77 93 79 77 110 93 79 complexe Senker vos enfants nos trésors dal leen jàmm ci xibaar yi bokk na ci lu ci gën a fës lu tukkee ci mbas mi a ni doomu aadama ak téeméer ak juróom fukk ak ñett la ñu saytu ñaar ñoo ci amee jàngoroy coronavirus bi ñaar itam xamuñu ku leen wàll ñett ñoo ca wér ñaar daal si sonn lool kenn ñàkkul bakkanam nag ci lim mi nga xam ne biral nañu ko niki tey ci alxemes ab employé wu Bougane Gueye Dany moo sàcc benn ci seen woto yi ñuy liggéeyee ba noppi daal di koy jaay wax na ni daal da doon jéem a fayu ci lu ko bi def tax mu doxalee nu ni mel ah, maître Abdoulaye Wade ma fi ne woon jiite réew Sénégal ay xabaar di wax ni daal dafa samp ndëndëm ci mairie bu Ndakaaru ah, lu ni mel nag askan waa ngi koy lu bu baax a baax ah, njiite réew mi Macky Sall ak Abdoulaye Balde daal laata seen tàkkalikoo bi déggante nañu téléphone ñàkk a déggoo ci ay kàddu ma war a dakk ku ne daal jël yoonam sa Terret l'enquêteur yi jot nañu biral juróom-ñetti ndaw ci ñamu doon sàkku laata ñu koy teg loxo bile xabaar lañu koy ndar képpee ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen lu tuuti bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal. mu ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree tey nag si alxamis gi junni doomi aadama ak téeméer ak juróom fukk ak ñett la ñu saytu ñaar ñoo ca amee jàngoroy coronavirus bi ñaar tam xamuñu ku leen wàll ñett ñoo ca wéer ñaar daal di si sonn lool waaye nag kenn ñàkkul bakkanam ci lim bi nga xam ne ministère de la santé et de l' action sociale baaxee ko mujjee ci rek ñàkk bakkanam accident ba nga am fukki waxtu ko juróom-ñeent ginnaaw marax gi ca witi commissariat central bu Kaolack camion ba dafa taseek Jakarta ba chauffeur camion ba nag yóbbu nañu ko ca commissariat central ba néew ba it yóbbu nañu ko ca l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack Euh, ca conseil des ministres àllar bay démb gi ñaar fukki fa ak juróomi ñaar njiitu réew mi Macky Sall jël na say coppite yu bees euh, madame Awa Mbeng juriste def nañu ko directrice de la promotion de la bonne gouvernance euh, mu di fa wutu Cheikh Fall Mbaye ma ñu woo ci yi te Euh, monsieur Bassirou Niang enseignant chercheur def nañu ko directeur du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance euh, mu di fa wutu euh, Moustapha Ly ma ñu woo ci yeneen yitte madame aminat Seck juriste ñu defoon ko lu yàggul dara coordonnatrice cellule juridique bu ministère des mines et de la géologie def nañu ko directrice de la réglementation de la production minière et des statistiques ca ministère des mines et de la géologie Yoro Diallo def nañu titulaire de classe normale ñeel urologie ca unité de formation et de recherche des sciences de la santé bu université Iba Der Thiam bu Thiès Jean-Louis euh, Abdourahim Ndiaye def nañu ko professeur titulaire de classe normale euh, mu yor parasitologie euh, mycologie ca unité de formation et de recherche des sciences de la santé ca université Iba Der Thiam bu Thiès Noël Magloire Manga enseignant chercheur spécialiste des maladies infectieuses dugal nañu ko ci fonction professeur titulaire ca UFR bu science de la santé ca université Assane Seck bu Ziguinchor mbir mi daal la ñëpp di waxtaanee ca diwaanu Sigicoor ak it fépp ci Sénégal ba nga xamee ni rek njiit réew mi Macky Sall jéggi na kii di meeru Sigicoor bi Abdoulaye Balde ñeel élection locale yi ñëw mu jël nag kii di Benoît Sambou ngir mu teewal listu Benno Bokk Yaakaar laata nag muy fësal lu ni mel moom njiit réew mi yëkkati na téléphone woo kii di Abdoulaye Balde mi mu recruté woon ci présidentielle ya woon atum 2019 bu nu sukkandikoo ci le quotidien l'Observateur ñoom ñaar waxtaan waxtaan nañu téléphone ah, ci boobule waxtaan Macky daf si wax Abdoulaye Baldé mu able mairie bi ah, mairie bu ah, Ziguinchor dem ci yeneen yitte ci gox bi maanaam daal daf ko bëggoon tekk ci ab poste institutionnel ba tey journal bi di ñu yeggee ni Abdoulaye Baldé dafa bañ lu ni mel terewul nag njiita réew mi wéyal la mu namm ci boobule gox tegaat keneen ca mairie ba responsable alliance pour la république ca Parcelles Assainies Amadou Ba daal yoonam neex na lool ba nga locale yi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2022 njiit réew mi Macky Sall def na ko coordonnateur national Benno Bokk Yaakaar Vox Populi moo ñu ko xamal moom mi la sax moo fi ne woon coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru atum ca présidentielle ba doon ko it ca législative yu 2017 bi yoon nag gën naa yéeg ba tax na daal dootul yem rek ci capital bi waaye dina wër Sénégal gi yëpp mu di nag ab poñ bu dal ci kañ fi wax ni daal bokk na ci a am solo yu jege ji réew mi Macky Sall ab source sax di ñu xamal ni Amadou Ba mile mu génne ci kopparu boppam caution majorité présidentielle ci local yi di euh, ñëw. Euh, soxna si euh, sant Diallo te fasaluñu turam la muy dund daal métti na lool euh, ba nga xamee ni rek doomam bi sant gay moom it te fasaluñu turam fu mu ko fekk rek di ko toroxal donte ay atam sori nañu lool ñetti yoon yoon a ngi koy toppee vol ak usage de chanvre indien waaye nag la muy def way juróom wi dafa tàmbalee jéggi dayoo réew mi quotidien moo ñuy xamal ni daal gay mi dafa dugg ci kër gi rek tàmbalee di ko tàngal la mu rek dal ci kaw rakam mu jigéen wi ak yaayam yamu ca nag. mu saaga yaayam te koy tëkku ni dana ko rey dëkkandoo ba sa yem nag waaru loola ca jëfin wa tax mu woo takk der yi ñu teg ko loxo di ko toppee injure non publique placé ko su mandat de dépôt fukki fan ci weer weeru septembre bi ñu weesu juróom-ñaari fan la ñu ca teg ñu taxawal ko ca kanamu tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru muy biralaat réewande ma ca kanamu attekat ba ci ku am fanweeri at ak juróom-ñaar jébbal juge bi ay kàddu yu mel ni rek kañ nga may bàyyi ma wax niki noonu atem weer ci kanam ba ñu ko taxawalaatee nag démb gay di fa biral nii sàngara koy defloo lu ni mel ci ay kàddoom daal ab plombier la bu euh, waree débouché fosse dafay mandi wa ilaa mu toox euh, ñax bu euh, bon bi parti civile bi di wax ni daal toppeewul doomam dara lu mooy rek mu bàyyi ko mu nekk si jàmm ka fa teewal ministère public bi di wax nii la mu def dafa doy waar teg nañu ci ndoddam ñaari atu yàlla yu muy tëdd benn ba démb ci guddi gi benn bateau notamment bu yeboon ay marchandises ak woto moo dajeek benn gaal ci digg géej gi Modou Dieye capitaine gaal gi mooy xam leen ni daal gannaaw ba ñu mbëkkante seen gaal gi dafa yàqu seen bagage réer ci ndox mi kenn si ñoom sax jële ci ay gaañu gaañu nee na nag ba ñu feeyee ci ndox mi capitaine bato bi dafa daal di dégg seen yuuxu yi daal di taxaw ngir muccal leen laata mu leen di jébbal marine nationale ba ñu yegg see port otonom bu Ndakaaru bi 4 heures du matin jotee ay gaañu capitaine bato bi moo ko faj euh, ba ñu defee nag seen déclaration ca service départemental de pêche ba noppi euh, njiital kuréelu nappkat yi fii ci euh, Sénégal di Moustapha Diop daf ko yeggee ndombol tànk yi ba noppi wax leen rek ñu fay jumtukaay ya ñu yàq yëpp. atum 1983 la juddu ma Moustapha Bawo nangu na nag la ñu koy toppee ñeel sàcc nga ñu teg ci ndoddam ba nga xamee ni rek taxawal nañu ko ca kanamu àttekat bu tribunal d'instance bu Ndakaaru chauffeuru groupe des médias ba nag la mu xamle moo di ne rek dafa bëggoon fayu ci njaatigéem bii di buggaan Gueye Dany ndax la mu teggi ñeenti junni ci payooru ñaar fukki junneem li ko waral nag di juróomi fan yu mu liggéeyul niki noonu la singale minibus bu marque to wu entreprise bi daal di dem wër ay parking ngir rek euh, jaay ko euh, ba mu yeggee Tiwaawan ni ñu ko réew mi quotidien di xamale euh, ñetti courtier ñoo ko wanalee ko Moustapha Tall ba mu saytoo kayit ya danga ko ba noppi transporteur bi yaakaaroon ni chauffeur bi buggaan da ko mandaté tax mu jënd woto bi juróom-ñetti million lu teg ci sunu koppar mu siy teg naan dafa bëggoon mu wóolu ko tax mu wan carte d'identité Bougane Gueye Dany kii di transporteur bi daal di dem wax ña ko jiite ca boobule entreprise ne leen rek oto bi dafa lakk muy xamle ba tey nii dafa jox juróom-benn fukki junni yi kii di uh, courtier yi uh, jébbal ma ñetti million ci sunu koppar ngir commerce ba mu bëggoon def uh, jëlit ñaari million yaak lu teg jënd ci beneen woto recel la ñu koy toppee ma Moustapha Tall ma jënd minibus bi am ne nag Moustapha daf ni ko woon bu gànd ko mandaté te kayit yëpp jaaroon yoon ñaari semaine si kanam la ñu sa teg l'enquêteur yi daal di koy woo ci mbir mi Guèye di biral ni daal mënul woon a gëm ni seen chauffeur moo sàcc woto bi ndax mësul wane gët yooyee ci liggéeyam ñeel Moustapha Tall nag maître Abdoulaye Nar Ndiaye nee na la ko taxawal ci kanam àttekat bi du yoon te du dëgg frère am Ousmane Thiam di ñaan ñu àtte ko ci yërmande moom Moustapha Bao te sax ay waajuram dinañu fay kii di Moustapha Tall àttekat ba taxawal na loole loolee ñetteeli fan ci weeru novembre ma nga nag prison jamono jile xabaar Wade dafa samp ndëndama ci mairie bu Ndakaaru ñeel élection locale yi ñëw coow la daal bu ñëpp di yëy mu di ab déclaration bu yëngal ñu bari ba ci sax kii di Babacar Gueye responsable parti des libéraux et démocrates ànd sukkali nekkoon it responsable PDS ci ay kàddoom nag du caagi ni rek dafa bokk ci kuréelu wàllu Sénégal dafa jàppee président Abdoulaye Wade ni ku màgg ci politique ba tax na kenn waru ko di tudd ci lu koy tuutal ba tey ci la muy xamle moom Babacar Gaye taxawaayu ka fi ne woon njiite réewu Sénégal bi mu sut fukki junni yoon mairie bu Ndakaaru ñi ko fa bëgg a teg duñu ay responsable ndax waruñu dugal maître ci ay coowa yu ni mel lii nag wor lay niroo la te it dafa mel ni daal ña ko fa bëgg a teg dañuy jéem a làqu ci ginnaawam Boubacar Camara mooy dikkaat ci ndombal tànk ga ñu ko takkal ca conseil des ministres àllar bay démb gi ba nga xamee ni rek def nañu ko directeur général adjoint de douanes ca Bénin inspecteur général d'état bi ancien directeur général bu douane sénégalaise mooy wax ni daal poste la bu ñu natt bu baax a baax sa administration douanière bu Bénin gannaaw ba nga xamee ni rek directeur général douane béninoise yi xelam dafa màcc ci wàllu comptable bu bokkul ci wàllu woowu président Patrice Talon dafa gis la mu doon doon wër ci Camara mi ah, si jamono ya mu yore duwaan sénégalaise atum 2000 jàpp 2006 ah, muy firnde rek ni Boubacar Camara du nekk consultant waaye poste boobu ñu taxaw taxawal lu bees tàkk ah, dina ca ànd ak directeur général ba ñaari jula yi te fasalu ñu seeni tur ku góor ki sant Seck ku jigéen ki sant Anne te ñu bokk benn jaba ba ñuy liggéey ca a dañu leen rek teg loxo altine gi ñu weesu si lëkkaloowu ab waay bu ñu ne daal moo di seen ca cité Castor dañu doon fuuxal Gadiaga ba jëlal ko ñaari million ci sunu koppar noonee la demee daal di koy yéggee police teg nañu leen loxo ñoom ak seen nijaay joojee di leen toppee extorsion de fonds ak association de a tey lañu leen war a jébbal parquet bi ngir ñu xool seeni mbir Seck ak Anne mi ñu gën a xam ci mama ñu ngi daal rëcc bu baax a baax la leen dugal ci wutum koppar gu lewut te yoroon rek seen liggéey lépp nag dooree ci décision bu doom dem jéem a duggoo ci gune gi aan ni ki noonu nag ñu am xalaat gu day ne daal teg ko xel aan dem xamal Gadiaga ni noppi na ngir ak nekk ak moom ñu teg si ay fan mu sëy ak moom mu di lu bokkoon ci seen xalaat gu ñaaw googee moom rek corom ba sekk bi loolu weesoo sekk daal di woo Gadiaga di ko wax ni daal ka mu ko doon sekkal rakkam la te mineur la ndax yëg na ko Gadiaga daal di tiit coupé sekk mi toog ay waxtu woowaat ko rek ngir ñu déggoo si ci mbir mi bañ a jipp si kaw noonee la ñu tàmbalee di ko laaj koppar juróom-benn fukki junni la leen njëkk a yónnee yaakaar ni dina fa yem ay fan ñu woowaat ko ni ko dem nañu police ñu laaj leen a téeméeri junni ngir neenal yëf yi gajaga tegu ca baat beneen yoon nag ñu laajaat ko juróom-ñett fukki junni ni ko dañu ko jàpp na ko joxalu ko mooy mu wax mu yónnee waat laata ñu koy laajaat beneen juróom-benn fukki junni yamuñu sa dañu dem rek wuti seen benn xameel bu ñu wanalee gajaga ñu ne ko nag na ko noppiloo si juróom-benn fukki junne ay fan ci ginnaaw nijaay ji woowaat gajaga di ko laajaat xaalis si waxtu yooyee la gajaga tàmbalee wubbi ay gëtëm gannaaw ba mu ko yónneewee koppar gi ba noppi daal di dem police jébbal fa plainte bu ñeel aan ak corom bi sekk ay waxtu lañu ñu def ci loxo ya takk der yi daal di yoole kii di seen àndandoo ba ñu jàppee woon seen nijaay ba ñu teg ko loxo moom itam mbiru Brice Terre di volontaire humanitaire français ba doon sàkku tey filmer ay ndaw yu nekk ca cent 3DTP élémentaire bu Kër Mbay Fall ma ngay wëyal yoonam commission rogatoire ba ñu yebaloon Sénégal ràññee na juróom-ñetti si ay ndaw ya mu doon def ñaawteef yooyu le ñooñu ñëpp nag ay mineur la ñu woon bi mu leen doon kon def atum 2019 fasalu ñu seeni i tur nag ñaar ñi fukki at ak ñett lañu ñu am kenn si ñoom fukki at takk benn yeneen ñaar fukki ñeent am ak fukki ak juróom la am ak yeneen ñaar waaye daal kenn sa ñaar ña am fukki at ak ñett moo ca gën a doyle waar ba nga xam ne ni rek sàkku na ko lu kenn mënul wàññi te ministère dafa sax jël ndaw gone gi yemu ca nag mu teg ci loxoom juróom-ñetti téeméer def ak moom film pornographique loolee sax di firnde la tax ñu tegale si ndox dama a na ñu ko source bi di xamale Brice Mille sax ma nga jamono ji ci loxo yoon foofee ca agression sexuelle ci ay mineurs yu amagul fukki at ak juróom corruption de mineurs viol sur mineur ak pédopornographique sur mineur par personne ayant autorité ay ma ñoo ko yoolee mu mel ni daal lu ni mel safagu ko dara ndax boobaak léegi Brice moo ngi rek yëngatu ci Instagram am mbokk yi li la ñu naan di loon tey ci xibaar fi ci Dakar Buzz daañu leen ko toppalaat ci lu ci gën fës jaa ngeen jëf.